procureur ci boppam xam na ne li muy wax du dëgg xam na ko kon li mu def léegi politique la du justice teyit leader yi fi nekk yépp ay cible Macky Sall lañu waaye xam nañ ni tey leen tax a jóg mooy jëmm Ousmane Sonko moo tax dem nañu fabriquer seen rebelle fex nañ ba mu tudd Ousmane su tudd loon Ousmane it Sonko lay sant waaw su tudd loon Ousmane su tudd loon Bakary Sonko lay sant dem nañu fabriquer seeni rebelle nee nañu waa ji moom xamu fu mu jógee moom dong nag moo waroon ñëw taal senegal moom dong xamu fu ñu ko jëlee ak ay xam naa ni war naa yàlla war na koo may ay don yu extraordinaire moom dong moo waroon ñëw taal ci Sénégal moo wax leen ni procureur waxul dëgg day politique ci politique la nekk waaye procureur dafa waroon am fitu ne

mars le la voté loi ci terrorisme y a un rébellion la bëgg appel à insurrection ñaar appelé à manifester qui est un droit constitutionnel et désormais un appel à insurrection dans le jargon le lexique juridique de Macky Sall de son procureur et de ses juges foofu lañ tollu ci Sénégal sen bébét yëpp nag moy ñu def ba tégg loxo ci leader seeni complot dem ne soyez pas étonnés Nous fomenté fi ay attentat Macky Sall sañ nako di ngeen jékki-jékki ñu dégg attentat parce que nous wax ñu contexte sécuritaire le Sénégal n'est pas en danger sécuritaire daw vous ko 4 avril police ak militaires et ak 4 avril ño def sen émission né liñuy wax amul a pas de djihadisme ni de terrorisme au Sénégal démenti bob mi ngi fi ci internet parce que nous avons une armée très républicaine Si xamné ne mënu ko ci pexem yi muy def ni police la ak ci ñi jité ñi gendarmerie wayé police bi du len top ci ëpp ci agent chaque fois que wax len ko nak Macky Sall bu mu des yu défé li def paré mais un complot yooyu yëpp daw biñ ko waxé dajalé dajalé euh, qu'on a vu jusqu'à présent euh xawma la nak lan terrorisme gendarmerie ak police ñoo au plateau 4 avril Quand lolu amul kan mo ëpp information gendarmerie ak armée ci lu jëm ci sécurité amul ci Sénégal Macky Sall ci bopom ñoo ñokoy informer Sénégal nak ñoo wara pas bañ Macky sa stratégie waxon naa ko c'est la stratégie du chaos xam ni mënul am troisième mandat nu muy def ba créer un chaos fexé ba jàpp les leaders dadi décréter l'état d'urgence et et et le comment on appelle ça le couvre-feu général pour mën justifier nak li def régime militaire la fi bëgg andi bu nak dañ ko top ci lool te mi koy def ak des complicités étrangères et à l'interne ay ay milices yu muy monter mom Macky Sall ay milices muy monté pour ñu mëna def ay njombe ci réew mi ñu né wala opposition bi ñoo woté won loolu lay waajal ñun xam nañ ko ndax am nañu information yi